damay wax man du ma wax man du ma wax man jomaay ma wax de jomaay bu neexoon mën na ma bañ sax gis man xam que mu ngi déroulé rek rek ñun ñuy def. mu liggéey man noonu la man bu ko neexee ba bu ñuy wàccee bëgguma kaa gis man bëgguma gis jomaay bëgguma ko gis. xam nga tax bëgguma ko gis parce que man jomaay dafa ma ma booleel muy Ousmane Sonko la ma booleel ndax lu mu dee dee jomaay mooy kilifa Ousmane Sonko. lu mu dee dee nag waaye jomaay moom dafa jël kilifte bi ma jox Ousmane Sonko ma wax la benn secret fii laa koy waxee tey. Mhm. may ma nopp bu baax. Mhm. xam naa ne moom président maa ngi jégul nag waaw ji nga biñ ne jomaay gañe na kër gi feet dell ci biir Fadilou Keita mu ngi toog tonto Waly mu ngi toog tonto Djibi Ndiaye mu ngi toog Abdoulaye Abdoulaye kii waaye keneen ki kii waaye te ñu Abdoulaye Touré Pape Abdoulaye Touré. Pape Abdoulaye Touré mu ngi taxaw man maa ngi taxaw ak président ñu sàcc ma téléphone su ma iPhone 14. bi ma ñëwee président ma sama photo yi envoyé ma ko ma ne ko dañ sàcc ma téléphone bi président ma sàcc ma ne ko dañ ko sàcc mun ma naa la may téléphone Pape Laye Touré mun na ma seede Pape Laye Touré ne président ñun de xam naa ne ñun ñi nga xam ne ñu jàppoon nag ñi ñi gaañoon ñu ñëpp dañu jël en charge Ousmane Sonko xam na ko tontu na ko dee leen yéen ñi gaañuwoon ñi gaañoon si manifestant yëpp ñi si dese ñëpp dinañ la jël en charge dara jaay Cheikhul Khadim biñ ci tegee deux minutes la jomaay la jomaay woo Sonko wax ji ma lay wax ni mosuma ko fenn la jomaay woo Sonko yi nga bu ko jomaay wooye xam ne la ko wax na ko félicitation wala Sonko na ko félicitation jomaay si boppam moo moo moo woo Sonko na ko félicitation jomaay ak a gore mhm. waaye kon ñaari góor yu xànd maanaam di nga di nga ñaari góor bu ñu xànd ñaari góor yu xànd moom kenn ci daal ñaari góor yu xànd di nga boo ciy wax yow su boobu yaay sonn rek ñi ngi ñuy wax naan Ousmane Sonko dafa war sori jumaa ak maa ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi kere ay ay collectif de xawma lan ay pas yoo xam ne maanaam ba ñu war a dem ci jàkka ji fobere jàkka ji wala du julli wala di di nekk ci sang néew di nga dafa am ñoo xam ne xam lan moo war noppi waaw dafa am xam ne dañoo war noppi xam ñoo dañoo war noppi maa ngi gis fan yi commissaire Keita moom dafa war a wax moom warul wax di lu tax li nga xamal li nga xamal li a bari bokk di ci réew mi la wax ma bokk ci réew mi waaye bokk ci réew mi def lu baaxam ci réew mi moo gën deful lu baax ci réew mukk xam nañ ko de mm-hmm. police ak ñoo mm-hmm. bi ko dàqee police dañ ko dàq di xam lu tax ñu dàq ko boo waxee mu naan noonu kenn dàqu ma di menacé dafa am ñu menacé de commissaire Keita menacé ñu dafa am fu mu maam fu mu de comme fu mu menacé dañ dañ koy teg place am yi ñu amee droit taxaw ne dafay defar collectif moom boobu noonu ñun ñu lañu amee droit moom ni nga ne waa toog si plateau di yàq Ousmane Sonko la ne xamee ah wax te duñ ko dañ koy wax ci poliment mag dafay am yar ñu nga mag bu yarul gune yi teg la sa teg la sa place gune yi nga nag mag yi xaapeer yi dañoo yaruwut yaruwuñu man mosuma gis ma man mosuma gis ku yaru APR ñi ci yaru bëriwul dañ leen di mais li leen loolu yëpp Macky ko moo leen ko teg Macky Sall moo leen ko teg. Mm-hmm. waaw Macky Sall tey jii am na loo xam ne mu ngi defoon biir gàddu su ma nga woon fii da naa ma déedéet. xam na li may wax Macky mi ngi may dégg lam defoon Gambie moom du ko wax. Macky la def Gambie loolu dinaa leen ko wax beneen plateau la. dafa lu mu def Gambie daal di Cheikhul Khadim ñu bàyyi ba hmm? caméra yi coupé. la ma wax loolu waaye dama am lu may ruus rek Sonko laay ruus waaye lam moom xam na ko. waaw ba mu nekk étudiant ba lam def Gambie ba ñu jàpp ko. baal ko moom xam na. Ah, ñu wax xam na de. Euh, léegi waaw ñun nañu wax si pour war leen si mbay mi nañu wax si mbay mi waaw bu tax di ngeen wax si mbay mi yéen. ok ah, ñu ngi si mbay mi ak li ñu ah, koy wàññi de. loolu dafa laaj étude ma tuuti non may ma tuuti. Mhm. dinañ ko wàññi de. ma dinañ ko wàññi. loolu dafa laaj liggéey. Mhm. maam dawul nu dañuy jékki rek Ousmane Sonko génn wala jamaay génn wàññi nañ ceeb bi génne décret déedéet mhm. bu ñu ko wàññee mooy wàññi définitivement ba beneen état ba fi ñëw duñ duñ ko dindi. duñ ko yokk mhm. duñ ko yokk ko dindi noonu lañ koy bàyyee. xam nga ñun Sénégal lan lan mooy suñu war a prioritaire ñun mhm. courant bi waru cher lekk waru cher. Mhm. naan waru cher facture courant waru cher ndox waru cher. Euh, loolu dafa nekk loo xam ne maanaam même benn président bu fi ñëwee da koy bàyyi da koy fekk. comme naa fi waxee. waaw yooyu dafa nekk loo xam ne maanaam dafa sensible maanaam ñu si war naan dafa war a yokk dafa war a yokk nañ teey nañ am la ko la ko taatoo il faut ñu toog noppi ñu réglé <laughs> ne son excellence def na ko ci mbay mi ak napp gi nag mu ko gisee. waaw xanaa dëgg ma la wax yéen biñ mais lan nga si gis deux jours nga gis ñu ne jën jën yi tour na si dëkk bi. nañ waxtaan ak yow xam nga jën jën lu mu doon jar man sama maam dana jënd jër kees jën trente cinq mille trente six mille gis naa ko. ma xale man suñu kër ay lébu lañ dañuy jënd jën dañuy jënd jën mais gis nga bu jumaa yi falay ministre bi fal beneen fii tegaat fii tegaat fii gis nga li dëkk bi changé ah loolu rek la. ñiy wax naan temps bi dafa dañoo war a gaaw liggéey Sénégal. ma ni la te deux mois rek la ñu. Eh, xanaa déggul ma la wax. Mhm. ñoom ñuy wax loolu ñoom nañ ko ñoom ñooy wax rek. Macky Sall 12 ans la fi def dinañu may jàmm de soo ko jomaa jal leen may jàmm rek ci jàmm ci jàmm rek waaw ci wow isbul àq rek ci dëgg ci Sénégal bi jàmm dañ xam moom. Mhm. assise de la justice bi ñu doon tëj fële ca jam ñaajo lan ngay xaarandi ci mbirum justice boobu nga xamante ne am na ci yu bëri yoo xamante ne war nañ ko jooyante parce que ñu bëri ci askan wi demoon nañ ba kenn wóolootul li nga xamante ne moo di justice bi son excellence ñoo ngir daal jooyantiwaat lépp. xam nga ma lay wax benn affaire. gis nga gis nga jomaay son excellence. Mm-hmm. Euh, ji nga bi muy toogee di wax ak euh, Maimouna Ndour yéen a ngi rappel émission moom Maimouna Ndour. Mm-hmm. bi ko metti El Hadj commencé dagg mu commencé yuux waaye dafa nekk ni ko dal ni ko dal la damay ni ko dal la. Mm-hmm. xam nga maanaam mënoo nekk inspecteur des domaines doo xam loi doo doo xam doo xam état doo xam loi mënu ne. Mm-hmm. dafa dafa am yoo dafa am secteur yoo ne boo fa nekkee foog nga xam foog nga foog nga jàng droit. mënu ne foog nga jàng droit. dafa xam na xam na droit jàng na ko xam na ko xam na baal li nekk si si justice xam na ko de. Ousmane Sonko xam na ne justice xam na ko ndax Sonko moo doon moo ko moo moo fi toogoon naan justice bi dañoo war a libre dañoo war a def lii mais si loolu tànk yooyu lañ nekk mais nañ leen may temps rek mhm. nañ leen a sorxo sorxoo te dañ jël seen temps te kenn du leen sorxo sorxo mhm. kilifa ne mhm. yi mënul nekk yéen seen taxawaay lan lay doon yow ak ñeneen ak ñeneen euh, aar projet bi fu tànk yooyu ngeen taxawee jamono ji ñun tey jii nii ñun nga xam ne maanaam maa ngi nuyu les tous les influenceurs di nuyu patriotes yi ku ma damay rek caakalaay taalaay nit mënuñu mënuñu bëgg ñëpp ku ma bëgg ku ma bañ maa ngi lay jàmm saa yu ma xëyee maa ngi lay ñaanal jàmm nag waaw du ma ma du ma bañ doomu aadama xamul tax parce que ma ko man bañ doomu aadama waaw man boo boo gisee su ma waxee rek ñu ne noonu Assane dafa kii man ma bañ doomu aadama dañ lay jàppee ku métti ah non non non du question man dama bokkut ak ñoom man bokkuma ñoom man dama nekk dama am fu ma fu ma newoon jóge ma foofu formé ma man sama sëb dafa am leneen lu si ne loo xam ne maanaam man man tey dama d benn affaire yow mu la mën naa def militaire ci deux mois moo nga nekk soldat. te dem bànq. waaw force loolu moom force la waaw parce que fi ñu ma formé la moom on m'a formé militairement non suis militaire ñi may sama classe xam nañ loolu. Mm-hmm. du xale xam nga jigéen il faut ñuy ñuy xam benn affaire moo le mot militaire là du non dañ koy jox nii rek nii non il est militaire rek non non non non. Mm-hmm. militaire formation la man dama jaar ci formation bu métti. mais co coowal général kande bi nu mu la def. coowal général Kandé loolu ci du ma ci wax. Mm-hmm. waaw su ma yónnee ci. waaw ña ña sa war a waxoon nañ ko. du ma ci wax. dafa am loo xam ne man mënoo ma see wax du ma war a wax laay wax. loolu loolu du. mais da nga ne militaire nga moo tax. waaye noonu du ma ci wax général bu jël daf ko attaché militaire. waaw man yi la ñu wax. le président c'est le chef mm-hmm. moom moo defoon beneen président bi génn moo ko ñemoon pour décret. Mm-hmm. décret bi ñëw na waa wàccee na ko affecté na ko feneen waaye na dem si il militaire nag. Mm-hmm. ci il militaire laa wax parce que le général là tout avant am naan général ci il est militaire d' fekkee il est militaire il les ordres les ordres ce sont sans exécuter waaw na ko exécuter ci jàmm ci fulla ci wa is bu mm-hmm. ci jàmm te toog. Mm-hmm. ok waaw loolu rek la. ci ji nga ñun am la xam la war a wax. nañ wax ci maanaam semence bi mag euh, ki génnee nu mu tudd yomaay wàññi ah wàññi na engrais. Mm-hmm. wàññi urée maye phosphate bi gerte gi wàññi na ko dem nañ nañ dem ci coopérative yi jëli jëli jëli gerte gi. nañ ko doon jëli. béykat yi ñoom dañoo béykat yi ñoom ñu ngi remercier euh, président de la république son excellence. Hmm. ñu ngi koy remercier suñu liggéey bu rafet lu mu def mu fay tamit dëgg la wax. Hmm. dans deux nga fay quarante quarante cinq milliards. Hmm. deux nga fay maanaam li fi nekkoon ci lépp ci bor fay nga ko. waaye kooku buñ la sant buñ la sant lan wax tamit si jëmi sëñ Fallou. ah nañu bàyyi yooyu. nañ bàyyi yooyu waa waa APR nag jamono ji waaye du ma wax si ñooñu. bi ah. waaye opposition la waaye bu leen neexee ñu opposé wu. nekk dama la wax opposition da am fit. ñoom amuñ fit. na am fit de. APR amuñu fit. amuñu fit amuñu fit de. Hmm. man dama la benn affaire man heure bu neex laay dox ñu ma xam dëgg man man man du ma laxatu mais boo amee fit boo amee fit te fit doo ko wane. Mm-hmm. moo tax man dama am fit ba pare ragal suma fit bi waaw. su fit li tax ma ragal suma fit man xam naa ko parce que dafa am benn benn brigadier maa ngi koy nuyu de muy king mu ngi dig léegi maanaam ji nga benn jour damaa toog moo xam mu ne ma mu ne ma Assane boobu ñu ngi police bi ñu jàppee ngaa ko benn ba pare mm-hmm. mu ne ma ma wax la benn affaire ma wax la mu ne ma di nga dans la police mu ne ma y a beaucoup de policiers mais y a peu d'alkaati. beaucoup de policiers. mooy mu ne ma am na alkaati yu bari. am na policiers yu bari mais alkaati alkaati bari bëri. ñoo jafe bëri lan mooy différence alkaati mooy hmm. alkaati. mooy ki ki ki muñ ki am yërmande ki xam lépp war a maanaam war a mën a war mën a teg nit lu méttit mu mu mu mu teggil lool mm-hmm. waaw maa ngi nuyu benn commissaire de police muy commissaire lay moo nekkoon Géejawaay demal nga xool commissaire lay. Mm-hmm. waaw kooku mooy c'est un vrai commissaire waaw ñun soxluñu yenn commissaires yi de. maanaam commissaire yoo xam ne dañoo bañ ñu maanaam commissaire yi bañ xam nañ leen waaye du leen topp ci loolu Sonko xam na leen waaye euh, lu ma gën a naqari suñu xadduna man ci Ousmane Sonko lu ma a naqari ci ci ci bi boobu ma mère su ma fekkoon su boobu foofu noonu suma bakkan bi su ya du ma ñëwi suma bakkan bi hmm? dama lay wax de mbaadu da nga fi ñu denc bolon bi bolone moomu hmm. fi ñu ko denc fa lañ may denc man fa laay diyee man war naa ko peut être dundee ko naa ko kii boo ko baalee kii dawul ku ñuy baal loolu maanaam dawul ku ñuy baal. ki toj vitre Ousmane moom duñ ko duñ ko baal man moom baalu ma ko moom. Ah, dafa am ordre loolu du xottu toj pare-brise du xottu loolu du yeneen yeneen ordre nekku si moo dugg fii nii mais toj tojatale loolu. ordre dañ ne ko génnal peut-être génnul moo de police. Mhm. du n'importe qui. comme commissaire de police ah tant que amuloo maîtrise. Mhm. ah concours boobu defe naa doo ko admis si lu ma waaw ñi ko ànd ñëpp concours ñi ko ànd comme commissaire de police yëpp dañoo am dañoo am maîtrise kon un commissaire de police n'importe kooku du xale commissaire de police commissaire bip nga toj para bi Ousmane Sonko teg ci ay kàddu nga ne yow commissaire nga un commissaire du tiit commissaire du raf ji mhm. nga commissaire du raf mu daan nañu xoolaat base bi nañ xoolaat formation militaire bi nañ ko xoolaat nañ xoolaat nañ ñuy tàggatal leen seen la déontologie bi ñuy jàngal école prose ñu gën ko tàggataat. mooy nañu nañu il faut savoir pardonner des fois. il faut savoir pardonner su lu bare bare bare bare dawul ma dama sol tenue rek wala yor naa grand bu rëy rek maanaam damay firi sama grand bu bi kenn du jaar. lu noonu de xam ah, noonu. tey ëllëg suba sa morom. ku la waxoon Ousmane Sonko dina jamaa dina nekk président doo ko gëm. waaye ñun ñi ba ko soo ko tànnee xamoon nañ ko ñun ci biir kaso lañ ko xamee ñun. moom xamoon nañ ko mooy kon nañ may président de la République jàmm. may Ousmane Sonko jàmm. ci jàmm te dañ koy am nag ci far fos duñ ko foxati dañ ko liggéey dañ koy am ñun nous sommes là pour defante leen. man je suis là pour défendre Ousmane Sonko ak ak le projet. je suis jamono ji euh, lan moo war a nekk yéen seen taxawaay comme que jël ngeen ni xeexal ko ba mu. man sama taxawaay leen rek la ci jamono jii. Mhm. dañoo nekk si nawet. Mhm. te seen yëpp ñu faas ku nekk sa koñ ku nekk sa gox fi nga ne. Mhm. bul xaar ñu ne état bi lii la déedéet. foo dégg nit boo dégg na tali bi taana sax yow génnal alerte def vidéo ne ah fii kat am na ndox balaa deux jours police euh, gendarme euh, kii ñëw sapeur pompier ñëw wala ñu xool nan la ñuy joxee mooy pour évacuer ndox mi mm-hmm. mais ñu nekk ci ginnaaw ginnaaw projet bi xaaruñu état. noonu a jàppale ñun xaaruñu état déedéet ñun xaaruñu état état ñu ñun xol état bi xaaruñ ci moom dara. Mm-hmm. waaw nañu état bi def def leen rek ñu def. Mm-hmm. ñun fu ne nii ñun ñun ay leen ci état fu nii ñun les patriotes ñun ñoo nekk base arrière. waaw ay base arrière leen de fu ne lu xew ci dëkk bi xam nañ xam yow mii xam nañ fi nga dëgg xam nañ ñi nga tudd. ah waa ci di di xam nañ li waaw noonu la rek du <laughs> question. daay man sa mbokk Saalum Saalum. voilà comme comme xam nga ne man Saalum Saalum wax mu ragal man mënu ma jur xale bi di ragal. mënu ma man mënu ma bay sàmm. Mm. lu nekk ma def ko Saalum.